ak lii la ñuy taamu ci yéen Mbàkke ni nga ko waxee rek euh, képp koo xam ne sant nga Mbàkke rek war ngaa waggar bu baax a baax a baax taalibe yi Sëñ Tuubaa ak li fi Sëñ Tuubaa bàyyi woon bàyyi ko xel bu baax a baax ndax lu am solo la ndax sëñtuwaa Tuubaa xëy na sant wi am na solo lool waaye li ko gën a amal solo mooy jëf ji waaw rafetal jëf ji selal pas-pas yi seddal yéene yi loolu mooy li am solo. te loolu sa war na ko sant Mbàkke war na ko santul Mbàkke képp koo xam ne yaa ngi tuddoo Serigne Touba rek war ngaa taxaw def loo xam ni ku la gis xam ne Serigne Touba wul morom xam nga Serigne Touba wul sax bari na loo xam ni taalib yaa ngi dox di ko wax koo xam ne Serigne Touba wul morom waaye Serigne Touba li ko ëpp solo ci ab taalib mooy jëf ci sa jëmm loo xam ni ku la gis xam ne Serigne Serigne Touba wul morom te loolu loolu war na taalib bu nekk nag taalib bu sukk jébul rek war ngaa jëf loo xam ne ku la xam ne Serigne Touba wul morom kon nañ gën a lu baax a baax nañ farlu ci ak njub farlu ci jaamu yàlla ndax sëñ Tuubaa lii rek la bëgg amul leen ci yitte leen lu waaye di yittewoo muy àdduna yaa ko yittewaaye sëñ Tuubaa loolu taxu koon a jog li ko fi taxaw na indi mooy xettali jaam ñi xettali jaam ñi nag fi mu koy mën a defee mooy sant leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi waaw sant gi nag weesuwut nekk ci ndigal yàlla yi bàyyi tere yàlla yi sëñ Tuubaa jéggiwut foofa weesuwu ko foofu rek la nag képp koo xam ne ab taalibe nga nanga nga bay sawar ci loolo te kenn kenn taalib bu nekk war ngaa mën taxaw tey ci suuf représenté ko ci suuf mooy représenté mooy nga nekk ci ak njub waaye doon ab taalib bi bëgg a nekk ci lu la neex mënta nekk sëñ Tuubaa am na fulla de waaw am na fulla loo ko bàyyil bala loola loo ko boole lu nekk sëñ Tuubaa bala ak loola waaw li sëñ Moussa Kana bu ngeen demee Touba du niroog waa Touba ah ca su ngeen demee ci réew mel ni Kooba waaye sëñ Touba mënee fu ko nax ku tawlu day tax kon sëñ Touba kenn mënu koo nax nañ nekk ci dëgg sëñ Touba ci dëgg la nekk sëñ tubaa fawut sëñ tubaa faluwut nañ ko xamee noonu muy muy mbake mbàkke mu di taalibe kenn ku nekk fii nga war a teg sab tànk comme ni ko suñu abibu waxee ñu ngi leen di sant bu baax a baax nag ci yaatal gi nga xam ne yaatal nañ ko barab bi ak waxtaanu leer wi ak leeral gi baax na ci loolu taalibe yi di ko xam ndax taalibe yi tamit sëñ tubaa rek leen ñor sëñ tubaa rek leen ñor te saa bu ñu xëyee buñ buñ gi déggee sëñ tubaa di bég kon nag buñ ci amee kuñ ci mën a leeral leen loo xam ne xamuñu ko ci woon wala ñëw ci barab boo xam ne barabu njariñ la te xam nu ñu fay jariñoo am ku ñu mën a taxaw waxañu nu ñu fay jariñoo loolu nañ ko sant yàlla baax a baax te sant ko Serigne Touba di sant bu baax a baax ngeen ñaan télévision bi nga xam ne moom la ñu àndal muy Madiana TV ah, nga xam moom liggéeyal Serigne rek moo ko tax a jóg ak manam tasare liguey seigne touba bi ak talibi seigne touba yi nek mu fekk len fa ngeen doon ko ñaan baax baax suñu borom yokk ko ba fepp fuñu ñuy dégg télévision rek ñu dégg ko fa télé bi nak fiñ par internet lay daw mais inshallah allah ñi ngi ñaan ngeen ñaan mu dem fepp rek dans le monde entier jërëjëf jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw moom daanaka kàddu yu ñu ci dolliwaat tuuti rek mooy mbokki seen xel dal bu baax ndax dafa am lu Sëriñ Tuubaa waxoon lu yéeme ci Mbàkke Kajoor gi Sëriñ Tuubaa nee na woon Mbàkke Kajoor mag Poroxaan rek yam lu ciy woote lu ma ci woowu doo ci ñëw mu daan ne képp ku ñëw Mbàkke Kajoor bàyyil xel ne dëgg nga sa tànk fu ma ko dëggoon mën a mën a xamadu kon nag ku ñëw Mbàkke Kajoor xel ne dëgg nga sa tànk foo xam foo xam Sëriñ Tuubaa nga fa dëgg laaja desin mooy mu waxaat ne képp ku ñëw Mbàkke Kajoor boo ne fi jun ahlu badar fekk la fi mbaa nga fekk leen fi sëñ Amar Fall Mbàkke boo ne diis ci barab bii daan tok ba si yàgg mu dag loxo bi nacc mu daan deret ji ken xamul ko ak der seigne touba waaw daan tok ba si yàgg ndeysaan bu ko hal dikkalee xam nga dafa am ño xam dañu xaw doy war dañ naan kii Mbàkke Feel bokk Mbàkke Feel bokk lol lol loolu la ko daan def bu nekké mbacke fel bok bokk wu woo Sëñ Tuubaa day dagg loxo bu nacc mu ne deret ji de sàlloo kenn xamee ko ak der seigne touba tam tam seigne touba ko yar borom dara ko jangal seigne touba ko yar ko jor gi barab lu bu sel boo xam ne ñi fi ñew sax ñu bari bëri xamuñu ko kon ko fi ñew li waxon fi lay waxat fi nak sel jiitu ci yow ak pass pas boo fi diké lo fi ñaan bu dé ànd nak pass pass ku dëgg yalla mëna na la ko may waaye so diké te ando pass pass ku yéne lo fi ñaan yalla yalla du ko may mbak ko da ni ni barab bu sel la barab la boo xam sëñ da ci wax wax ju yéme sëñ bar né won ñaar fi la ko amé ñu ne ko mbàkke ban ban mu daan yalla dé de fi lu ma tënkal seytaane ba ma yëg ne tënkal ma seytaane fi ñu mbàkke la ko amé ñu ne tek mu né yalla jege na ma ba ma yëg ne na ma mbak ko jëg la ko amé loolu suñ baara neen fii la ko kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu